jaajëfatee jaajëfatee sama gars man la Mister Shake depuis Brooklyn New tey nag dama ñëw defal leen benn vidéo ci juge Samba Sall bi nga xam ne dafa génn àdduna benn avocat bu ñuy wax Khoureychi moo génn mu wax ay wax yu doy yoo xam ne moo juge bi dañ ko amoon ndax juge bi kat bu leen fàtte moo waroon atte Ousmane Sonko waaye nee na juge bi daf ko wax ay wax yu doy waar yoo xam ne nekk te juge bi xelam dalul woon yi Samba Sall dafa mel ni dañ ko liggéey yoon dafa mel ne li muy doon def tey ndax moom ndaroon na jàpp Ousmane Sonko le 5 mars bu leen fàtte defe naa le 5 mars boobu 4 heures du matin ci la ñu jëlee Ousmane Sonko fële gendarmerie daal di ko dugal ci benn oto daadi ko yóbbu bañ ko yóbbu ay avocat Ousmane Sonko di ko wër di ko wër di ko wër mënuñu ko gis xuree subaa nag dafa ne moom.

juge bi dafa tiitoon ba sax ki mu dëkkoon dafa mujj déménager maanaam dafa mujj jël ay bagages waxu ko gouvernement waxu ko Macky Sall waxu ko APR waxu ko kenn waxu ko ay juge dafa jël ay bagages am dem dëkk feneen xam nga lu tax lu tax mu dëkk feneen mooy ne dafa ragaloon pour boppam wala famille am ndax Khoureychi Ba nee na juge bi dem na bu tudd benn commissaire bu ñuy tuddee Cheikh Sadibou Ndiaye ndax commissaire boobu dañ koo rayoon. ci bureau ben ministre d'état lañ ko ray ba paré dugal ko ci auto yóbbu ko ci euh, falaise genre ki falaise fele euh, mamel daal di ko sànni otom dañ ko wadal ci melni genre montagne yooyu lañ ko wadal wax ne accident la xamna pour wax ne accident la juge bi Samba Sall moo nettali loolu Khoureychi Ba ba pare nee na Khoureychi juge Samba Sall tamit nettali ko kenen ku ñu ray ben commissaire bu tuddi commissaire Ba

du du amul lu muy tiit waaye nit rek la nekkate yoo li ñuy wax moom nelawul woon wax ji sonnaloon na ko ba mu woo xaritam ngir nettali xuree ci ba ci boppam wax ñu ne yëf yi complot la bu doy la boo xam ne loolu daf ci daf ci feeñ ba juge bi ñu ko njëkkoon jox muy juge ci Seck ba mu demee ba xam ne yëf yi dafa doy waar moom it daf ci set wicc daal di ko daal di wàccu yëf yi kon nag lu tax Samba Sall moom nee na li tax Khoureychi Ba li mu wax doy waar mooy le 5 boobu le 5 mars xam nga ci la ñuy jëlee Ousmane Sonko daal di ko 4 heures du matin daal di ko yóbbu nee na euh, Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm te yeexuñu moom moo ne ko jour boobu man dafa mel ne ci ay gént laa nekkoon dafa mel ne Ibrahima yonent yàlla Ibrahima ba ko yàlla ne danga ngaa war rey sa doom xamuloon fu mu nekk moom nee na dafa mel ne da nga kaa xabtal xamuloon fu mu nekk ba ndara signé ngir ñu jàpp Ousmane Sonko jour boobu dañ doon jàpp Sonko bu leen fàtte mooy jour jour boobu bés boobu ci la Samba Sall wax Ousmane Sonko ñëwal si bureau ba mu ñëwee ci bureau Ousmane Sonko dafa waroon toog ay avocat mu toog waaye Samba Sall bugguloon bàyyi avocat Ousmane Sonko dugg léegi dafa nee na dafa mel dañ ko xabtal moom xamuloon fan la ne dafa ndoroon jàppalu Sonko te jour boobu bu ñu jàppoon Sonko yóbbu ko mandat de dépôt dëkk bi day gën a tàkk waaye nee na li ko sauvé mooy Khoureychi Ba ci bopp moo ñëw di fëgg bunt bi di fëgg bunt bi am yeneen avocat yu ñëw xam nga fëgg bunt bi loolu nag moo yee moo yee Samba salla mu mel ne ci ay gént la nekkoon léegi après ba ñu toogaatee ci leen ci la euh, wax nañ dem ba lundi le 8 mars bu lundi bi ñëwee après loolu moo ko sauvé nee na bu doon loolu bu doon loolu dëkk bi day tàkk waxul ne dëkk bi day tàkk mais bu doon loolu dafay jàpp Ousmane Sonko mandat de dépôt te bu boobaa dëkk bi dafay takk ah lii ay wax yu doy waar la yoo xam ne Khoureychi Ba dafa ko wax mais li tax mu wax ko nag man waxoon naa leen ne dossier bii dossier bi dafa tàng dossier bi pataas la dossier Adji saar bii wax naa leen nañ ko jël ñu sànni ko lii kat bu koy beneen juge jéggee est-ce que dina bëgg jël est-ce que dina bëgg jël cas bi yaakaaruma ko yaakaaruma beneen juge dina nangu jël cas bi kaa bii dañ ko war a jël ñu set ñu jël ko ñu sànni ko ci sën ya waaw ndax maître Khoureychi Ba ci boppam moom wax na ne yëf yi yëf yi complot la waaw euh, parce que Ousmane Sonko mës na taseeg sax ak juge bi mooy le 10 octobre 2019 Khoureychi Ba wax nañu ko mooy ci affaire 94 milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko dafa ne Mamour Diallo moo ko jël xam nga nee na euh, jour boobu ba Ousmane Sonko ñëwee dafa ne juge bi dafa dafa tardé woon sax waaye dafa ne juge Samba Sall man dama bëgg euh, julli dama bëgg julli juge bi daal di ko jox basan wala sijaada ci la julli nee na le huit nag ba mu ñëwee ba mu ñëwee le huit mars ndax daf ko doon tëj le cinq mars mais le huit mars ba ba ñu fëggee buntu ba ba xelam ñëwaat dafa ñoom sax di kaf ak Ousmane Sonko di ko wax naan yaa ngi fàtte ba nga fi ñëwee ci affaire 94 milliards yi da nga ne woon da nga bëgg julli juge bi xelam xol bi giif na boobu jël na décision ne lii duma jàpp Sonko jël na décision ne dafay bàyyi Sonko mais lii nag dafay wane ne juge bi dafa nekkoon nekkuloon si jàmm mi ngi doon dund ngi doon dund lu métti mu ngi doon dund stress est-ce que nag stress boobu du loolu amul lu mu def ci tey feebar bi gën a yokk ba dégg naa fan yu mujj yi mënul sax nelaw ci lay daal di génnee àdduna ndax dañ ko ci mere li mu li mu bañoon euh, tëj tëj tëj Sonko ndax gouvernement bi da ko ci mere xaw ma kenn xamul kenn xamul waaye daal li li wóor ba leer mooy ne moom dañ ko joxoon instruction xam naa wax ko ne Ousmane Sonko il faut nga jàpp ko le cinq waaye moom dafa jël courage boppam mu ne du ko du du ko jàpp mais lii daal doy na waar trop trop trop trop léegi nag Khoureyssi dafa bëgg wane fii ne moom Samba Sall guerrier la ndax ba mu demee ba ci biir xam ne lii euh, Euh, sampul kër def cee def ci wow ba wow wow ci wow. ci guen waaw euh, waaw nee jour bobu bañu bi doyen juge bi ci bopam sax mom euh, policiers policier wala gendarme ñu ñew bu leen fàttali ne jour bobu dañu fa ñew euh dañu ndaron normal ci le plan incapoté avec les arrivées successives du secrétaire de l'ordre et du bâtonnier, la réunion de famille Tony dans le cabinet aura permis d'évaluer la quantité de ruses et de malice déployées pour nuire au député Ousmane Sonko qui avait fini de toute évidence par rebuter un juge, Mohamed Sek, aussi patient et accommodant que celui en charge du 8e cabinet au point de le pousser à vomir ce dossier répugnant et rempli de vide et de néant. Le dossier bi dara kon complot bi de juge Dadi Baye. Dadi Baye.